يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على الزهر يدوم دبرا محى توجه المكاره ليا باق حبا بذكره وهو ليا عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض رد لغير جهة الشيطان من طيب الممر والأوطان فر لغير جيت العين يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت تنبي توفيق هاد قاده الإلهام قد أبديالي ما لهن بهام بدت لي اليوم برب الغيب أعاذني ممن قلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي متعب عني محت مكارهي والتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت shakara lii muyassirul asiiri maxtaarahu liya bila masiiri subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke di ñaan bu baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram ni noonu la ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi janook ñun moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp nga xamante ni yéen ngi koy topp DM TV saa su nekk waaye ku gis jataay bi ni mu tijjee xam ne xel mat naa dal bu baax a baax a baax ci bis bu mag bi nga xamanteni ni ñu ngi koy waaj foofu ci Paris eh, di wax rek jërëjëf Serigne mohammed Diagne ci beuyit yooyu nga xamanteni képp koo rek yaa ngi janook ñun te dégg njàngin mi nga xamanteni ni jàngee nga ko léegi xasida yi mu doon njàngin moo xamanteni ni njàngin mu neexa a déglu la di la ñaanal baax suñu borom guddal fan wi te wéral cër bu baax a baax baax baax waaye ba di ànd ak yéen ci jataay boo xamanteni dañ ko fas waajale bisub xasida bi nga xamanteni mi ngi am fofu ci Paris mu don magalu khaside Touba Paris sha allah euh, ay di nuyu ak ziaré bu baax am Amsatu mbake mom serigne Chouaïbou di ñaan bu baax suñu borom guddal fanam te wëral ay cërëm bu baax. jaar batul maraaxib nak nek fofu ci Paris ken mënu leena wax te tuddo Cheikh Bass mbake maraaxib mi nga xamanteni ñom la mom la sëriñ Amsatu mbake jël doxale ko seenub diggante saa su nekk muy ànd ak ñoom ci doxalin wu am solo woo xamante ni képp koo xamante ni yàgg nga bàyyi xel bis bi rek gis nga taxawaay bi nga xamante ni sëriñ Bas Mbàkke moom sëriñ Bas moom sëñ Fàllu am na ko ci liggéey boobu waaye it ba tey di nuyu bu baax sëriñ Xaadim Silla mi nga xamante ni mën nañ ne moo taxawaayu foofu taxawaayu jëwrin foofu mel ni buñ ko nuyoo day mel ni matale nañ bépp mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk di nuyu bu baax suñu baay bi nga xamante ni moo fa nekk sëriñ Mouhamadou Gaye mi nga xamante ni moom seriñ moodu Habib gay mi nga xamante ni kenn la ci mbooloo moom waaye doon fa magum taalibe di ànd ak ñoom ci liggéey bu sell bi nga xamante ni ñu ngi koy amal foofu kon ni ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaye di nuyu mboolem waa Touba Jaalibatul Maraaxib nekk foofu ci Paris xam naa dañuy dikkaat ak yéen léegi ci jataay bi ci njàngum xasida mu mel ni jataay bi jëmm yi nga xamante ni ñoom ñoo fi toog kenn dootu leen wana lekk waa axlu xasida mu mel ni suñu loxo càmmoñ ñu feggoo ci koo xamante ni képp ku dégg kuréel jaalibatu maraaxib gi nekk Paris xam ne Serigne Saliou Ndiaye xasida am na taxawaay taxawaay yu am solo yoo xamante ni yàgg na ko ànd ak ñoom di leen tette ci xasida yi ba tey jii ñu leen di dégg fenn fu nekk ci réew mi ak li génn réew mi waaye laataa ñuy ñëw ci laaj yi nga xamante ni fas yéene nañ koo séq ak Serigne Saliou Ndiaye xasida ñëwaat ci Serigne Bollé mu bégal bokk yi nga xamante ni ñooy ànd ak ñun fenn fu nekk ci réew mi ak li génn réew mi ci xasida yi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 صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واعزمني بداعي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من كل ما يسوءني أو يضرني في الحال والمعال بقدر عظمة ذاتك وكن لي بك عبدا وطيب نفسي في كل من تعلق بها بي في حياته وبعد مماته وصفعني في كل من تعلق بي حيث كان وحيث كنت واحفظ كل من ناداني لحاجة من كل ما يقافه في حياته وبعد وفاته آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تبارك وتعالى وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزاته الكامنات ليعلم الناصر أن قدي إلى إلهنا أحب قدي ليعلم الناظر أن قدي إلى إلهنا أحب قدي جاحت بالقد سنين وحدي من لم يكن موعدا ساجعدي بالقد جاهت عدو الله عسرة أعوام بذكر الله من عام أيسس لعام كسس وقبل الجميع عام أكسس من عام أيسس لعام كسس وقبل الجميع عام أكسس فاليوم قد سرفت قطي إلى تديد دين تديد دين الله واعب الإله فاليوم قد صرفت قطي إلى تديد دين الله واحب الإله قد جعل الإله قد أحب إلى من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بها ذوي انعتابا لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بها ذوي انعتاب لمات بالوباء كل كافري إن لم يتوبوا للإله القافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق محلك قناس لم يبق في الخلق سوى ما يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي حتم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاصرتهم لوجه مالك الثمن نبعتكم معا على أن الجمل في سارس القعدة مع تل العمل يوم مماتي موافق ممات شر العين كان قاسد الشمات عمات شيطان مميت بعدما قارنني لأكسس الدماء مماته من معجزات المنتغى صلى عليه من حداه وانتغى لم يكن ذا معجزة لمرسلي سواه قط وهو خير الرسل صلاة سلعة سلعة السمد على النبي المنتقى محمد وآله وسعبه الأسود من بهم أرض العلي العشود وآله وسعبه الأسود من بهم أرض العلي حسود سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله جرجف سرين بوله تي نجانغو مو بسيفو مجاريون اي اندو كوك نيه ما شاء الله دي نيان كاتنالكو بوروم كاتنال كو تي دغرال كو تي ويرال بات بي waye comme niñ len buñ ko tijjee jataay bi ci wàccaay yi nga xamante ni kenn ku nekk gis na jataay yi nga xamante ni ñu ngi koy amal moo xam bisu xasida moo xam fii ci biir réew mi la ak fenn fu nekk ci réew mi saa su nekk bu bisu xasida di ñëw ñu ci indil ay wàccaay jataay bii kon buñ ko tijjee xasida rawatina màggalu xasida goog nga xamante ni ñu ngi koy amal foofu ca Paris lu jaadu la lu la waaye comme niñ leen ko waxee léegi rek ci nuyoo bu njëkk bi ñu ngi ak Serigne Ndiaye xasida mu doon koo xamante ni moom it jëruñ la ci Touba Jaalibatu gi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci Paris waaye bokk ci ñi nga xamante ni it euh, mën nañ ne euh, tette nañ ñenn ci murit yi nga xamante ni ñoo fa nekk te yëngu ci xasida yi bu baax a baax a baax mu xam ndorteelu bis bi euh, lu bari xam naa foofu rek lañuy ñuy daal di dugg ndax ñu ci bëri ñaare bis mel nii day jaadu ñenn ñi nga xamante ni ñi ngi koy dégg fenn fu nekk ci àdduna bi ndax jëmi màggalu xasida gi nga xamante ni mi ngi am foofu ci Paris naa daj na àdduna eh, nit ñi xam nañ ko bu baax a baax waaye lu jiitu xam gi dafa am ay jaarwaay yu wér yoo xamante ni jaar nañ ko mu mel ni am nañ ndigal ci ki fi toogaloon sëñ Tuubaa wëlbati ko amaatoon ndigal ci sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Suhaybu xam naa loolu sëñ Saliou Ndiaye dina ci dikki léegi lenn rek ci njëkkate njëkkatee waxtu wi eh, daara jooju nga xamante ni ñi ngi koy dégg foofu ci Paris saa bu seen bisub xasida di ñëw murit yi di ko waaj fenn fu nekk ci àdduna bi ndax ak fàttali eh, mën nañ koo am ci bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel fenn fu nekk daara jooju ci naka la sosoo sëñ Saliou aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni uizuha bika wa duriyataha min asheytaani wa aouzu bika rabbi an yaxduruni bismillahi rahmaani rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل بجازا قبول ورضاه والطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل بكي جلدي بكي تالبي يب دين دي نيو دي دين زياره te di len balu ak te balé ak te tàmbalee sunub nuyo ak sunub ziar ci ki fi nekkal cheikhul khadim maté ko seuk di cheikh ibn muntaka suñ borom yagal ko te wéral ko ba lépp lu mu yéné liggéeyal serigne bi mu liggéey ko nu kawe ndort ànd ak njabootu sëñ touba gep gi nga xamni ñom la sekkal liggéey bi te ànd kook seexi sëñ Tuubaa yeeg nun donga yépp ba am ci lu kawe ndort Euh, di ci tofal tamit euh, euh, sëriñ Hamza bi nga xam ne tamit liggéey bii ñuy bëgg a wax it yàlla dogal na mu nekk ci bopp bi ndax suñ borom nangu lum dogal bokk na ci gëm yàlla te yàlla dogal na mu doon jëwri ni jànkati xasida yi kon moom it ñu ngi koy ñaanal ci bir ñaan gogo mhm. ginnaaw bu ñaanale njabootu seigne touba gep ci bir lañuy tabbi euh seigne Mouhamadou fay mu melni timit euh, li ma laaj laaj buñ mëna wax dara la waye timit lu xawa a la ci wet ndax euh, doomu euh bopam da ko jégué mhm. am ci lo xamni timit nit ki da ko war di baye xel digam ak boromam ci jëpp jëf ju baax euh, ju ju niru ne euh, suñ boroom euh, def na ko ca mu doonub lantinoor day diis ci moom mu mu di ca waxaat ndax gàkk-gàkk jëf ju baax yi ci mën a juddoo dafa bari ci lu ko mën a gàkkal ndax dañ ne nit ki ay tuyaabaam da koo war di nëbbe ni muy nëbbe ay ñaawteefam hmm. waaye lu xam lu mën a wax la kon nag kon suñ kàddu gi ñuy yëkkati di bëgg a wax li ñuy wax it liñ ci jublu rek mooy eh, daa mel ni taarix histoire nga laaj laajte dara ñu di la ca wax kon nag lépp daa tàmbalee sëñ Tuubaa yem ca kepp dara eh, kenn doonu ca dara lépp sëriñ bee yàlla dogal mbir mu ne mënta ñàkk jëwriñ te foofa jëwriñ ji ñun ñëpp xam nañ ni eh, sëñ xaadim la bu dee kuréelu maraaxib bi moom la suñ borom dogal mu nekk ca bopp ba ci kaw kilifteefuk sëriñ Hamza euh, mu jël sëriñ Cheikh bas mu sëñ basum sëñ Fallou doxale ko diggam ak kuréel bi yépp ñoom it loola ñu nangu ko jàpp ko moom it mu téye ko jàpp ko di leen teete ci lu bari mm-hmm. waaye cosaanal tàmbali bi moom buñ koy wax mënuñoo bañ a tudd ki nga xam ne xañ na moo nekk ci bopp bi muy sëñ xaadim mm-hmm. sëñ xaadim moom yàlla dafa dogal mu nekkoon fii ci dëkk bi di mbuur mm-hmm. bàyyam it nu boole woon nu mu daan ñëw ci daaray xasida ji eh, di fa sosi daara jeet 1991 la sosu woon 90 eh, 90 la sosu woon muy ñëw ca durus ba di jàng si eh, ba yàlla dogal pour ma tënk ko rek mu génn fi dem Paris bi mu demee Paris yàlla dogal léeg muy def su ñëwee ci dëkk bi Eh, day fekk boba man ma nek jalibatu maraaxib ci serigne Hamza bu ñewé mu ñew fofu fekk ba fa su ma fekkee ñu nuyu serigne bi ziar ko laata muy dem da am ngont mom da ñaan mo xamni dañuy dajé seen kër def fa ab durus ñu may ko ko mu soga delu xagn na nit lum tam fi barab di ca gémmi fum dem lola bu yewo ca mom da koy bëgg a dund foofa loola te mooy sababu mu tàmbale eh, bëgg di taxawal foofa ab durus ca fa mu dëkkee durus boobu bi mu ko tàmbalee li mën a da ci am loo xam tamit dafay xaw a eh, xoroma tuuti moo tax mm-hmm. eh, waaye Euh, foofa daal la tàmbalee. di di def loolu ci këram ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la miinanteel. ñuy ñuy ñuy ñu ñu koy def mu mel ni koo xam ne boo wàccee di defoo dara nga toog di jàng sa xasida loola mu di ko def di def saa su ne bu ñëwee ñëw daara ja ba benn at mu ñëw fekk ma jaali batu ñu gis sëñ Hamza mu siyaar bi mu siyaaree ba noppi ma leeral ko ne ko moom de. dinay def foofa sax ab durus bu mu fay taxawal boo xam ne moo bokki taalibe am fa nekkal la sëñ bi ah ñoom am nañ pastéef di kon danaa la jox ñaar fukki jaalibatoo maraaxib ak juróom-ñett. nga joxal ma leen ko buñ demee. ñu ñu ñu dugal ko ci liggéeyu sëñ Tuubaa boobu. sëñ Xaadim dal di jël loola loola ci moom lool nag ñaar fukki jaal ba toog juróom bi wàññilu keroog ma jox ko Xaadim bi muy ñi bi muy dem Paris mu yóbbaale ko. liggéey boobee di dox ñuy dem yëfe di yaatu di yaatu. loolu tamit liñ ci mën a jàngat rek mooy nit ki lépp lu muy def na ko def ngir jëmmi sëñ Tuubaa su ko defee ci pas boo xam ne sëñ rek a tax. Mhm. sëñ Tuubaa mooy koy dem ba dimbali ko ñu bokkal pas pas bokk yëg-yëg la koy wammatal ndax euh, sëñ bi ci pas-pas dani raafaxtu asxaabal kahfi faaraxtul adat euh, sëñ bi nee na maa asxaabul kahfi ñoo àndoon ndax lan ci pas-pas pas-pas bi nga xam moom la yore nee ba mu mel ni àndoon nag waa asxaabul kahfi waaw kon pas-pas lu ne mën na koo may nit pas-pas boobee nag moo tax ñoom suñ xaadim loolee ba mu ca dekkee mu mel ni jaalibatu maraaxib dafa bokk ci liggéeyam maanaam nos dafay mel ne tey jii peru euh, maanaam kurus goo xam ni euh, per yi dañoo tasaaroo mu mel ni xasida gi day buum goo xam ni per bu mu bu mu fekk mën nekk fen rek da day dal dal di roof dal di jàll ci beneen di roof noonu lay def ba dajale lépp ba mu doon wenn say mu doon seere bu mag boo nga xam boo yëkkatee lépp jóg kon ñoom dafa mel ni seen liggéey bi murit yee yàgg nañ fa daan yëngu ci lu baax ci xeet yu baree bari mhm. waaye liggéeyu xasida bu wér a wér a wér moom barke bu bi kitaabati rabbi rabbi ku la mu taalin li wa ci rabbi mhm. tërbiya googu moom ak doxalin woowu moom ci waa kuréelu Paris boobu ñun lañ ko njëkk e, seetloo ci doxin mhm. yàlla dogal bi bim bi bim wéye biñ wéyelee loolu ab diir e, ñu am yéene yi ñoom di ñëw di fekk si màggalu xasida yi nga xam ni moom la Serigne Hamza di def fii ci Sénégal loolaat ñu waxtaan ci bañ ca waxtaanee booba amoon na tuuti ay tuuti jafe-jafe ci jamono bi jamono boobu yoo xam ni jataay bi laajut ñu di ko leeral waaye booba ku nekk ci eh, maanaam ku ku ku ànd ak ku aaru dangay ngay duggaale ca kaaraange ga loolu nag bañ ca waxtaanee ah, ñoom ñu am yéene taxawal bisub xasida bañ ca waxtaanee ma ne ko loolu xañ na du yomb léegi yéen sañ ngeen bu ñuy def màggalu xasida yi fii ci tuubaa bu ko sëñ sa di def bis bi ko sëñ bii def yéen ngeen tollaleeg la sëñ bi def foofa ci seen barab bu mu leen sopp loola bu boobaa yéen da ngeen am am yéene ñëw mënu leen a ñëw ngeen tollale li sëriñ bii def fii ci màggalu xasida yi ngeen koy def foofa mën naa xam ne cib tënk tàmbali maanaam bisub euh, xasida bi nii mu yaatoo foofu la doore euh, leneen li ci topp mooy ñoom ñu am ca tamit aw doxin woo xam ne ak pësif boo xam ne mm-hmm. nun ñii ak ñeneen ñu mel ni man tamit mm-hmm. ña nga cay jàngewaat ci pësseefu sellal aku dogu ak tàmbali sëñ bi yem ci kepp ndax ñoom dibéer ju ne danañ daje ci seen barab saal bi nga xam ne moom lañuy daje ca daara yi jaalibatu maraaxib di def liggéey bi suñ ko xësee tàmbali ñoo julli ñoo yem bañ nañ ko ba fi ñuy jànge xasida gi saal bi kenn amul sañ-sañu naan fa kafe wala nga def fa dara kenn amul sañ-sañu dugg fa di fa téléphoné kenn amul sañ-sañu dugg fa ñëw fekk ni mu toog nga di ko nuyu suñ xësee tàmbali liggéey bi ci dibéer yi ba huit heures di jot kenn du am soxla ci kenn ba ba lim yi nga xam ne moom lañ war a def mat ñu soog a ñaanalante am na saal bu mu lool boo xam ne ku bu ñuy naan café fa lañ koy defee bu ñuy waxtaan ci Sëñ Tuubaa fa lañ koy mm-hmm. saal bi nga xam ne moom mooy jëmmi daara ji ci boppam moom mm-hmm. kenn kenn kenn amul sañ-sañu def fa lu weesu jàng xasida mm-hmm. wala alxuraan loolu rek lañ fay def bu ca dara dee dee dee dee dolli ko mooy julli juróom duñ fa waxtaan bi fa def dara am na meneen mbaar moom sësal moo xam ne mu xadimatu xidma lañ ko tuddee bu ñuy waxtaan ci bu ñu waree waxtaan wala ñu war a naan kafe foofa lañ koy defee loolu nag liñ ciy jàngate mooy ki nga xam ne day waxtaan. Mm. ci moo xam muy waxtaan ci sëñ bi ak loolu lu mu baax baax. Mm-hmm. dafa bokkut teg waxaat li sëñ bi waxoon. xasida moom mooy da ngaa mel ne ku représenté waat sëñ Tuubaa ci jataay bi muy jóor la mu doon jóor boromam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. loolu nag day lu rëy loo xam ni. miin ngeen ko miin moo tax xamuñu ñun jamono moom buñ taxawee buñ buñ toogee fi barab di ko def. duñ xam euh, loolu lu mu lu muy wundu. ñoom nag sëñ Tuubaa dimbale na leen ba. noonu moom teqale googu am na. góor ñi jigéen ñett duñ gisante ñoom dibeer ju ne. mbir nag boo ci dee dox te bëgg maanaam am ci ngërëmal sëñ bi doo seet nim la juboo da ngay seet da ngay natt nim juboo sëñ bi. nga di ko jéem a defee noonu. Mm-hmm. di ko yéene di ko jéem ci say cër di ko jéem ci saw jëfin li nga xam ne nag moom doomu aadama manam yeggu ca loola nag bu boobaa yéene ja mën na koo mottale mooy wa innamal a'malu binniyaati mm-hmm. ñoom kuréel bi euh, noonu. Euh, ci wàllu wàllu tënk. Mhm. ñoom noonu la ñuy doxee foofa. Mhm. loola ñu mën cee jàngate ne. Mhm. mënoon nañoo tàmbale def ko kuréel goo xam ne dañuy yëkkati. mu doon daayira boo xam yëkkati saa ne. te ñun ñëpp xam nañ ne fii la waaye ñu ci ëpp xam nañ ne Europe bokkut ak fii ndax dañoo bokkut culture bokkuñu ay aada. yu ñuy dund ñun liñ xam mooy génn ci mbedd mi jóoru say xasida ku fa romb becc taxé yoy yëpp dañ ko xam waye ñe ay nasrañ bokkuñ ay bokkuñu culture comme na bokkuñ ay culture duñ bokkuñ ñu jëfëndiko motax lépp ci fu fermé wu lay doon ñom nak loolu yi miñ tambalé di dox doxu suuf bo muy doxu tasawuf te xasida mbirum tasawuf la motax sëñ bi ne hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi ayali bi zikri ma salati wa bil matxi sa borom jubale nga sama sama sama njaboot mm-hmm. ci euh, feq ci ci pas-pas ak feq ak tasawuf ci sama xasida yi ci julli yi may julli ci ak zikkar yi may zikkar ci suñ suñ borom ak tagg yi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yooyu tamit lu bari la ko jural wala yëpp tey masaafatu suluk yaa moom ne ani suluki wal muluk ak wàcc an muxniyan ani murabbi wal tatwili sayra bihi yaa rabbi sëñ bi neen saa xasida saa bu ko nee cap da ciy taxañ ak dox ci suñ borom tabaraka wa taala niki tuwasilu aqlaami xalwatin euh, sa borom day yeggale sam ci sama xasida yi da ci yeggale aji jaamu yàlla ci boromam ci lu dul muy def xalwatu te loolu lu njariñ yu bari da cee da cee da cee pour ma bañ a dugg ci be geneen wet ma dellu siwaat mu mel dañuy desandi waaw <laughs> ci ci ci wàllu daara ji ndax it euh, am na ci ñun luñ fa seetlu mm-hmm. te euh, ku leen di yàgg topp sax ci internet bi yaa ngi koy bàyyi xel muy jataayi majaalis yi nga xamante ni daara ji dañ ko fay amal am na day day day mel ni bayit bii ñu nekk suñu ginnaaw muy wajaxal bu yooti kullaha masajida mm-hmm. ndax ku dem foofu seen barab boobu foofu ci Conflans mm-hmm. da ngay dégg bayit bi foofu ci seen barab bi maanaam ci nga koy xamee euh, ndax euh, macha allah li nga wax nii lu wér la bu ñu xasee ba toog ci jataay bi day mel ni bërëb la boo xamante ni dañ ko beral bërëbu jàng xasida ñooñe kon day yàlla ñoom ñu gën a xamaat euh, li ñu jubloo wax sax dina nuru luy xoromu kon day mel ni bisub xasida ku koy def ku nekk doo tëb tëb rek ñëw ci bis bi. daa war a jiital ci dundal gi ba noppi yaakaar naa. loolu sëñ Mor daa am euh, fu may tàmbale. maanaam saako ceeb li muy bari bari. ay fepp par fepp yu par benn fepp la. waruñ cee benn fepp yu bari ñoo dajaloo ba toll ne saak bi saako bi. moo tax ak yàq lu mu tuut tuut donte zara la. nit ki waru koo xeeb. Mm-hmm. ci yàq ñoom li ma jàngal ci ñoom. Mm-hmm. mooy la ma waxoon ci tàmbali bi. Mm-hmm. nit ki nga xam ne moom bu wàccee. xam na ni daa war a jàngal sëñ Tuubaa xasida te war na koo jox yitte joo xam ni li sëñ bi doon def diggante yàlla ak yonent bi moom la fas yéenee. def donte matewu ko day baamtuwaat li sëñ bi doon waxoon da koy nettaliwaat mi ngi mel ni ko am sa géwalub juddu muy ñëw di waxaat sa mbiri sa mbiri maam loolu day jeqikuwaat kon kiy jàng xasida daa ñëwaat di bégal suñ borom ci li ko sëñ Tuubaa doon wax ak di ci bégal rasulullaahi sallallaahu alayhi wa léegi nag ñoom par kenn la loolu daara jooju par par ay benn nit la kenn ku ne ci ñooñu ngay gis noonu bu wàccee am na dog bu mu warlu diggam ak sëñ Tuubaa ci xasida te bu koy def ci xeer woow la koy def kon kooku buy ñëwee ci daara ji fi ñu war a daje pour def loolu du ci am takkaluf man tajallut maanaam du metti ci moom day yomb day xam ne moom bu ne bu wàccee 6 heures jàpp 9 heures waxtu woo xam bu jotee bu xasee ibbi téere bi waa kër mi dañuy xam ni kii daa nekk ci njàngum xasida kenn du am ci moom soxla loolu nag mooy tax buñ dajee liggéey bi day yomb ñoom du jafe du jafe ci ñoom lu bari la ci nit mën a jànge ñoom buñ dajee ci daara ji kenn ku ne loolu sa warteef la boo nekkee sa kër teewut nag ni ma koy faral di misaale mi ngi mel ni julli juróom yi ñuy def ci jàkka yi julli juróom yi ñuy def ci jàkka ji saa bu ajuma jotee yenn jàkka dootul tijji ñëpp dañuy dajaloo dem jumaa ji moo ne ni ñu koy defee ci biir jàkk yi bu ajuma jotee noonu lañ koy defee. waaw kon loolu ci ngay ci ngay tegtaloo ci euh, xam ne ne ñoom. Mm-hmm. naka naka naka jekk. Mm-hmm. si pas-pas bi dafa nekk ci ñoom ñu di ko dund bis bu set. Mm-hmm. ñuy dajaloo di feeñal seen pas-pas boobu ci benn barab. te loolu tamit li muy buñ jàpp ne tamit. ñoom dañuy toog nii rek di durus nii rek. di di durus nii bu ñaan jotee ñaan xam nga loolu ay ibaada la jaamu yàlla la. mais yaay jaamu yàlla tamit. dañuy dañ lay jàngal ni nga koy defee kay fii bi moo taxit téere xam-xam yépp dañoo am ñoom ab jàngalekat jàngkatu xam-xam dañuy def majalis dañuy jël ay dars dañuy jël dañuy jàng fiq dañuy jàng tasawuf am nañ fa ku ñuy wax kii euh, ba Ibrahima Ba Ibrahima Ba mooy jàngalekatu diine bi saa boo xamee ne daje nañ dana jël euh, euh, ci téere sëñ bi jàngale ca lu bari ba ñu ca bari tamit liñ war a xam ci seen wàllu diine ak seen lépp mat na Euh, te loolu tamit li muy li muy rëy rëy boole koog maanaam di liggéey di dajale ay addiya ak lu ne kon ñoom wax dëgg fa yàlla ay royuwaay lañ yoo xam ne moom wax dëgg fa yàlla suñ juwaa moo nam ma feeñal seenu liggéey moom ci ñoom macha allah xam naa waaw waaw xam naa xam naa dinañ ci ñëwaat bu baax a baax a baax baax ci seen euh, taxawaay yaakaar naa xajul ci waxtu yi ñu bëgg kii eh, yiñ ko bëgg a indi dinañ ci indi beneen jataay boo xamante ni dañuy ñëw rek ñëw wax ci doxalinu Touba Dialibatoul Marakhib foofu ci Paris ci seen pas-pas ah, ndax day mel ni mbooloo yi bari nañ daara yi taxawu bis bari nañ fenn fu nekk ci àdduna bi waaye ñoom de ñëpp ay jàmbaar lañ waaye ñoom de bokk nañ ci royuwaay yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax kon laata ñuy ñëw ci deuxième partie bi sëñ boole xam naa day yëkkatiwaat xasida rek bu ko defee ñu àndaat ak yéen mel ni dinañ ñu ñëwaat nag ci li nga xamante ni mooy bis bi bu baax a baax a baax. يا من أمرت الايمان كل عمو بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت الايمان كل عمو بأن يصلوا على المختار في رسله مني قبلا صلاة قد لفست بها نسما لوجعك يا من قد معك زني فاقبل لسامي وسعي كله كرما ولا ترد لياتني من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقصة وقد بخير عناء لي بعمالي أشكر بفضلك سعي وارضي النبي يا من بعي صرت ضاعة ولم عميني أنت الكريم الذي أبقيت كرما يا خير ناداني أبدال السبل كل بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبالي وارفع نسامي ضاجود وتكرمة ولا تردنه يا مطعب العلال دم النسام إلى سعي سعاب قطا ولا تردنه يا مصيب الغلال سواك لم أرجو في سر وفي علان بعق وجهك عاقق للرجاء عناني يا ربي كن لي وخذ لي بالرضا خرادي وما التمست بجاء المنتقى أنيلي يا ربي كن لي وخذ لي بالرضا خرادي وما التمست بجاح المنتقى أنيلي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 سمد وجالبة المراغب في عاجل الكاجل الراغب سميت وجالبة المراقب في آجل كهاجل راغب jërë ngeen jëf eh, mbokk yi sha allah jërëjëf eh, sëñ boole ci njang mu am solo moomu eh, waye ginnaaw kaddu sëriñ Saliou Ndiaye xasida gogou nga xamanteni ku fay tewlu rek gën nga amaat taxaway bu baax a baax ci kurel nga xamanteni ño nek fofu ci Paris fofu ci Conflans amal bis bu reuy bi waye di nuyu ak jaajeufal suñu xaritu bop bi nga xamanteni mo fa nek momit it Habibou Li diko nuyu bu baax sëñ Fallou Dia ga yëpp ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mu melni batay dañuy ñëwaat ci bis bi nga xamante ni nag jamono ji ñu ngi koy wàcc mu fas yéenee doon la 14 incha allahu rabbi 14 mars mu mel ni ñoom it comme li ñuy wax ci doxalin gi rek noone it lañuy ñuy saytuwaat seen bis boobu. waaye loo xamante ni man damaa koy wax moo Modou Faye bisu xasida yi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci biir réew mi la tàmbalee ak ci bitim réew fenn fu nekk ñuy seetlu ne eh, ñàkk a teewlu ñaare day am ci bis yi. loolu xam naa mu doon benn soññe boo xamante ni ñun ñoo koy sàkku nga soññal ñu ko mbooleem mbokk yi nga xamante ni ñooy teew ci bisu xaside yi waaye it ak di taxawal bisu xaside yi ban taxawaay lañ ci war a am. waaw loolu moom ba tey booy day dugaat ci li ma doon wax euh, bi may bàyyi noonu mooy nit lépp muy def dafa war a ànd ak pas-pas. Mm-hmm. pas-pas tamit dafa war a ànd ak ko xam wala xamlu wala laaj wala nangoo roy yooyu yëpp laaj na ko boo royee ko xam doo juum boo xamut te gis ko xam nga di ko roy doo juum su ko defee dafa mel ni maanaam dafa laajoon bisub xasida buñ ko dee def nañ bëgg jataay bi mel ni ak lañ war a dénk nit ñi ci yar ak i teggin mooy bisu xasida dinañuy daje di gise di namonte ko di namonte ko waaye bisu xasida du barabu namoonte ko mm-hmm. jàng xasida lañ wax tur wu ne jëmm lay woo lu ci jiitu mooy jàng xasida njàngin mi dafa am aw yoon mm-hmm. laaj na teewlu xam li la yëkkati ndax nit doo dagg sa biye wala bu dee fii senegaal nga dagg sa yitte paas ci oto yi garet garet dem ba ci barab war a toog jàng xasida nekk fa kenn ku ne saafa nuyoo ba waxtu we jot ngeen lekk naan dem loolu baax na waaye am na lu ko gën mm-hmm. mooy laajoon na saa buy jot lépp loo xam ne bépp doxin woo xam ne bëgg nañ ko ci bis bi ci jataay bi ñu bind ko ci ay kayit wala kenn ku ne ñu yónnee la message ne la boo xasee dugg ci biir saal bi mënuñ la fi nga wax fi benn baat bu dul jàng xasida soo soxlaa kenn koo bëgg a waxal wala koo war a gisal ndax xañ na gisee yi du yomb nga génn ba ci biti woo kooka ngeen wax li ngeen di wax lu dul loo xam ne lu lor képp képp képp laaj ndax dinaa koy misaal ci lu bari ñu jàpp ne dafa jafe waaye jafewut mm-hmm. ndax julli moom mi ngi tàmm ci allahu akbar ak asalaamualeykum talan la déeyaale ak sa borom loolu bis bu set nun ñu di ko def te moo ne dañ koy sàmmoonte dañ koy def wax dëgg fa yàlla sëñ bi yërmandeem ji ñu baaxe ba may ñu ñu am sañ-sañu wala ñu am kàttanu mën a jàng xasidaam loolu la dañ ko cee war a delloo njukkal am yéene ji ak pas-pas bi te di ci doxe noonu bu ñu xësee tàmbali rek ñu xam ni kii dafa tàmbali ki nga fekk muy jàng xasida nga ñëw jox ko loxo bu la rusee dalay dalay jox loxo te nit boo ko fekkee muy jàng xasida tamit soo ko nee asalaamaaleykum faw dalay delloo nuyee danaa wa salaam loolu ko xamut moo koy def nañ bàyyi barab yi nga xam ne bu fa toogee di jàng nga gis nit mu tiim ak xasida am di ko jàng nga ñëw naan ko asalaamaaleykum wala nga di ko jox loxo loolu ñàkk xam la nit bu tiimee dara de bu tiimee ak xasida di ko jàng waroo ñëw nuyu ko waroo ko wax benn baat li fi ak ma ngay sëgg ca loola loolu dafa mat a bàyyi xel te bis bu set ñooy ñooy ñooy daje bu dee sama kalaas gi mën nañoo tàmbali boo xam ne dañuy dox tuuti ba mu neex leen ñu jekki-jekki euh, dog ko fii wax ay naxa sa xandak ba mu neex leen ñu delluwaat ci xasida gi loolu sëñ bi suñ buur ah, procureur képp fi ne nii ku mu ku mu wowoon bureau di wax ak yow di la laaj. sa téléphone sonné sañoo jël sa téléphone di wax ak keneen. Hmm? assa nag yow koo xam ne yow lii muy li sëñ bi. te xasida gi sëñ bolle eh, eh, jàngal muy li yàlla mën naa sur ànd xatti xasida la koo xam ne bu bu bu bu bu bu fekkonte ne maanaam lu sëñ bi firiloon aw mag la wala dara dafa laaj sax ñu jël ko di ko tasaare ci nit ñi ndax sëñ bi dani dama bëgg képp koo xam ne xool nga sa bët ci xaraf yi te tarjumaan ji rek lu bari da ko cay wax ñaan na ci boromam ne ko képp koo xam ne dafa aju ci man fuñ fu mu mën a ne ak man Cheikh Cheikh Khadim fu ma mën a ne yàlla nag ma wuutu kooku ci ràmm ko yooyu yàlla wa shafiani fi kulli man la biya haysu kaana wa haysu kuntu loolu wetu boppam la waaye foofu xasida gi ci jubloo waa dafa xam la ne képp koo xam ne xool na sama mbind mii na xam ne maa ngi koy xamal ne lépp lu ñuy bind ci xalima saa borom sama mbind la gën a bëgg man sëñ Tuubaa li yaalama naasiru anna xatti ilaa ilaahina ahabu xatti yaa dégg mu teg ci ne jihaat jihaat ñi ko fi daan def ñëpp ay fital lañ daan yor ak i fit ak i jees di ko def moom lañ xam dagg bopp wala yooyu moom nag dani loola da koo teggee nit ñi xasidaam yii mu doon bind moom la jël mu mel ni jihaad jooju ci la jihaade moo tax mu ne jëhatu bil xatti siniina waxdi mooy jihaad naa li ma doon jihaade mooy sama xaside yi ma doon bind ay at te ànduma kenn si siniina waxdi man lam yakun waxee za jahdi daal di cee teg ne bil xatti jëhatu abdu wallahi ashrata awaamin bi zikrillaahi ci sama mbind mi fukki at yi ma nekk yëpp jihaad ju ma def ci sama xalima gi laa ko defe kamaa mi daal di euh, euh, kamaa mi daal di xilaa kamaa xilaa mi daal di nu mu ko ci waxate misla asyufin wa asfumi dafa na de son borom def na sama xalima ak sama daa mu mel ni ay jaasi ak fett ci xoli yéefar yi kon loolu lu yéeme yéeme yéeme yéeme la nga xam ne xasida gi ba ba muy àgg tëj gi muy wax sax di yeesal diine yàlla ji sax nee ci sama xasida yi laa yeesale lislaam fal yowma qad saraftu xattiya ila tajdiidi diinillaahi waahibil ilaah mu wëlbatikuwaat daal di feddaliwaat la mu waxoon ci njëlbeen ne sama lépp lu ñuy bind sama mbind la ci suñ la ci gën a bëgg moo tax mu a xat jaala mm-hmm. jànguma sama aliwa guddut waaye xat xarfu kiit la maanaam dafa dafa dafa dafa da ko daa feddaliwaat xat jaalal ilaahu suñ borom dogu na ci def sama mbind ne xat ya ab ilayhi min kulli kitaabin taab lépp lu ñuy bind mu gën ci bëgg sama mbind man sëñ Tuubaa dandi jihaat jooju mu doon def nag yeggoon na ci nee na maanaam taraayu jihaat jooju moo tax ma ne law an na nii lam atrukil kitaaba mujaahidan bi azabil itaaba la maata bil wabaay kullu kaafiri in lam yatubu lil ilaahi alxaafiri nee na jihaad jooju ma doon def ci sama xarit su ma su ma su ma bëy roon mbind mi mbooleem yéefar boo xam ne nanguwoo tuub di faatu ci mbas ah law ànd na nii bu doontelee man mii lam atrukil kitaab bay moo woon mbind ma ci waxtu woowa di ko jihaade kon la maata dana faatu biir wabaay ci mbas mooy pes kullu kaafir bépp yéefar kon loolu li ma ci jubloo wax mooy xasidaam yi lépp lépp lépp ci la ko def lu ci nit wax lu mu rëy rëy rëy sëñ bi bindal na boppam bu ko gën a rëy te sëñ bi li muy bind ci xalimaam maanaam am na yu ko gën a rëy yoo xam ne amul sañ-sañu bind ko kon yi muy bind nii ñun la rëy ci ñoom waaye moom fa moom dara rëyut ci moom ndax nee nañ ci xalima ak bi laay toxale lawhul mahfuzam wa allamani alim maalam alami wa xaadali xabiiru sirral qalami sa borom moo ma xamal lu ma mës a xam moom mii dañ kumpa moo ma wommatal secret xalimaam ka kon laaj na bis yi buñ fay dem ñuy xam li ñuy yëkkati bisub xasida wax nañ ko waxati ko waxati ko te dafa mel liñ ci xam day bari waaye day mel ni pour ñu jëfandikoo ko ñun moo ñu jafe te moo ne bu dee suñu aajay adduna yii rek de dañuy jaral lu ne yaakaar naa ci demukaay yi am na ci barab yoo xam ne boo fa demee téléphone képp doo ko dugal ci biir kii bi doo ko doo ko dugal ci ci ci biir barab ba moo xam bu fay la moo xam buy tàkk ab saak doo ko yor booy dugg dañ lay visité xam nga lu bari mën nañ koo jàngate ci lu bari ñun ci jaaruwaay yi <laughs> ndax barab boo xam dañ fay teg ab machine wala dara nga di ca jaar. soo yoree lu doon weñ wala lu ñu la tere wala nangam am loolu dañ koy rékki teg ko fee nela la du dugg fii lay yem te moo ne yë mënoo yor yenn daraja joo xam ne maanaam ak koo mën a doon boo jaaree ci machine yooyu maanaam loolu ñu la wax moom du dugg fa yem ak koo mën a doon kon loolu ñun laaj na suñuy garam waxinu garam place suñuy waxtaan suñuy melo ci buñ toogee bu nu neexee bu ñuy dugg ci xurum bu ñuy jàngi xasida yooyu yëpp ñu ségg ko bàyyi ko ci biti ba def sun jotaay bi ñuy ak señ tuwa ba nopi soga ko ci suñu melo fofu lolu euh, ci la ci lay doyade la ilaha illallah sha allah jërëjëf sëriñ Saliou Ndiaye xasida yaakaar naa li mata jukki lepp ci jotaay bi yaakaar waxtu yi duñu ko may waye li mu wax lenn rek buñ ko jëloon di ko bàyyi xel di ko jëfandikoo yaakaar naa ay kat ay tomb la yoo xamante ni tomb yu am njariñ la tomb yi nag eh, mi ngi jiitu ci ñun ñi nga xamante ni eh, ñi ngi jàkkaaroo ki yéen di wax ak képp koo xamante ni yaa ngi jàkkaaroo ñun ñoom eh, dañoo doon ñoo xamante ni. Eh, wax deug yalla eh, ñu sëriñ bi defal taw feex lañ ci xasside yi te li ñu naan nañ leen acca nii la nii la sa su nekk bu ñu gesso dañ leen ci gis ñu nekk ci bu baaxa baax kon ñing koy ñaanal mom bu baax suñu borom taxawuko te guddal fanam bu baaxa baaxa baax xamna dañ koy jox eh, kaddu yu mujji rek bu ko defé ñu yëkëti jotaay bi waye di leen joxaat yenen jotaay yo xamanteni DMTV waajal leen na leen ko ngir waajal bis bu mag bi nga xamanteni mi am fofu ci France di doon le 14 mars insha incha allahu rabbi waaye laataa ñuy tàggale ko rek sëñ Saliou du ñàkk mu ay kàddu yu mujj yoo xamante ni da koy yaatal bokk yi nga xamante ni ba tey ñooy jàkkaarook ñun fenn fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. waaw sëñ Mouhamadou euh, bis boobu bu mat a la. Mm-hmm. Euh, te loola képp koo xam ne yaa ngi dem ci bis bi euh, nga baal ñu nga bàyyi xel li ñuy wax. bis ba buñ sañoon képp koo xam dugg nga ci saal bi saw làmmiñ la muy tudd bayitu sëñ Tuubaa lay doon du ko du ko weesu loolu daal maa ngi koy fàttaliwaat mbokki taalibe yi beneen bi ci tege mooy teg teggin yim laaj képp koo xam ni gëm nga ni tey bu sëñ Muntaxa ñëwoon ci jataay bi doo fa sol mbaxane nanga moytu di sol mbaxane ci barab yi ñuy jàngi xasida ku am ngànt nag moom dañuy xam ne dafa am ngànt waaye gis nga bare bi ñuy jàngi xasida lu mat a ëpp sol mbaxana la lu mat a bàyyi xel la ay dàll moom waxaalewuma ko waaye fu ñuy jàngi xasida bu dul ngànt wëree su faa sol mbaxana kiy jàng xasida kenn waru ko nuyu du dul loo xam ne lor lor moo ko laaj rek mat naa xel kon nag euh, ñu ngi yalwaanaan ñëpp képp koo xam ni yaa ngi ñëw ca bis ba ngir yàlla yonent bi jëmmi Sëñ Tuubaa ji na nga nu dimbalee ba boo ñëwee ba téye sa xasida li fi ak ci sa njàngum xasida dimbali na ba bu ko raxe ndax sëriñ Xamsatu Jaxate daan na wax ne hmm. képp kuy jàng xasida di ko dog dangay nga a xam njariñal xasida kon ñun li ñuy jàng bari na lool di ñuy daje di ko def bari na lool waaye nag mm, ba tey dafa mel ni dafa des te lu ñu wax wax wax day mel ni wax gi sax hmm. amut njariñ hmm. nit du nax boppam mag lu ko tax a bàyyi ay yitteem ak jël alalam def ko ci dara loola da koy jar xasida yi moom lam wara war don doon doon na nun suñu jugin ci bopam ak deugmal dem ci ba yar bobu dafa des kon mangi yamale fofu kaddu gi di jéggul ñëpp nak te xam lepp lo loo xam luñ fi wax la ah lama daan wax rek liggéey bi djowa mom moom kenn doonu ci dara ba tax kenn di yëkëti loxam waaw loolu moo moo tax sax kàddu yi xaw naa xaw naa xaw naa diis ba lu ci bari loo xam ne tamit euh, boo ko saraawee day am leneen lu muy firi te nit ki moom li am solo rek mooy mu sax ci lu baax te bañ a naagu te bañ a woru te bàyyi xel lu bare bare bare xam ne tamit àdduna dikkuñ fi ngir euh, leneen lu jaamu suñ borom te moom bi nee na sama borom def na ko mu doon jaamu yàlla guñ nangu kon buñ boolee di jéem ca ibaadaat yi ba noppi di jàng xasida yi nga xam ne moom nangul nañ ko ko ba noppi ci biir nangu sëñ Tuubaa googu ca la ñuy dugg noonu kon euh, sëñ Modou ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar yow di la beral sa cantuk bopp ah, wax dëgg fa yàlla waaye dem TV ñi yaatal liggéey yu baree baree baree bari waaye loolu tamit lu mu yaatu yaatu nañu bàyyi xel sun bopp ci xam ni sëñ bi mbirum àdduna taxu ko woon a jóg tey lu ci mata lu ci lépp loo xam ne nit ki war na koo def diggam ak borom mu doon lu mu war a nëbbit bu ko waree nëbb na ko nëbb waaye tamit am na am na ci yoo xam ni ñaare topp gi ñu koy topp mën naa dem a dem ba jural nit tamit mu feeñal lu mu waroon a nëbb <laughs> te lool si fit <laughs> gënut kon maa ngi tuub tey jégglu bu baax a baax sëriñ Abdul Xuddus jiite mi tamit ñi ngi koy sant bu baax a baax kenn ku ne xam nga sëriñ Ahmadou Mbàkke mu daaru moxti doon kenn tamit ci kenn liggéey yi ñun ñëpp ñu xam ko moom mi mu doon loxal ndijooram tey suñ borom yàlla dogal mu ñëw teewe teewe teewe teewe liggéey mu fekk ko fi loolu dañ ciy sant sëñ Tuubaa bu baax ki ngërëm ci barkeb xasida yi jërëjëf borom Tuuba barkeb xasida yi sëñ Tuuba jëf Masa allah jërëjëf euh, Serigne Salou Ndiaye xasida ci kàddu yu matale yooyu mbokk yi ba euh, comme niñ leen ko waxee rek li nak euh, ben jotaay la won ci wàccaayu li nga xamanteni moy bisub xasida bu mag bobu nga xamanteni mi ngi am fofu ci Paris mu doon magalu xasida gi nga xamanteni sa su nek bu accès mbokk dinañ bayiko fenn fu nek ci réew mi ak ci bitim réew dinañ indil benen jotaay bo xamanteni ma sha allah dañ koy and ak yeen Serigne Salou xamna naa ne wax ci jëm ci walu sa su nek gaay jaayante yi nga xamanteni ñaare ñing koy wacc ci kilifa yi nga xam xamanteni ñaari ñi ngi bàyyeekoo fi ci Sénégal mo xam mu doon jankat wala mo xam mu doon kat lool lepp doon euh, pas-pas bo xamanteni euh, wa kurel gidi kurel jaal kuréel Jaalibatul Maraaxib nañ ko bu baaxa baaxa baax kon xamna jotaay bi fi lañ ci yem ak yeen waye batay di nuyu ak a Serigne Abdoul Aziz Diop mi nga xamanteni mo moo kamarabi euh, ñun ci caméra bi ñi ngi koy nuyu baax di ko jaajëfal jox wacc waye bu baaxa baaxa baax kon fii la ñuy yemandeeg yéen kon alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ya rabbi najina min